لست من دنيا وساعة للجنان وانقاد لي هو واللي ساف الجنان mbokk julli yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax di leen baalu àq di ñaan yàlla mu boolu ñu baal àq di nuyu Serigne Mountakha Xaadimul Moustapha di ñaan yàlla mu gudd afanam lool te dollu ko ak ba mboolem li mu yéene liggéeyal Serigne Touba yàlla kattanal ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee ci barke sëriñ Touba di nuyu njabootu Serigne Abdou Lahad gi yëpp di ci jiital Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Abdou Lahad di di sunu xalifa di sunu maam di sunu sëriñ di suñu lépp ñu ngi koy ñaanal yàlla ci mbaaxu yàllaam ak yërmandeem ak kattanam ak man-manam ak sañ-sañam yàlla na ful ay atam ba doon téeméer bul teg ab lim. bu yéem mboolem képp kum jamonoonteel ci kaw suuf ba mboolem liggéeyu sëriñ Tuubaa bii fi ko sëriñ bi bëgg mu egg fa yàlla na ko yàlla boole ci ña koy egg fa ko sëriñ bi taamoo ci barke sëriñ Tuubaa ci boppam mbokki julli ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax ñu ngi jéggul it bu baax nag di nuyu njabootu Sëriñ gi ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi nuyu sëriñ jiirim Sëriñ Abdou Lahad moom mi nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi boole woon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ak njabootam ak mboolem taalibe bi yëpp Euh, dama bëggoon bala ñoo euh, eggale ji rek euh, màggal gi moom nañ ko daa defee rek lañ ko defee ndax <coughs> ku ne xam na ni jamono ji ak xew-xew bi ci bi ci am tax ni ko sëñ bi diglee wax ni nako ko ku nekk defee këram te wàññi mbooloo bi te yemale mbooloo mi te ñu nit ci kilifteef rek la ñuy tënku kilifteef googu gi nga xam sëriñ si mooy suñu kilifteef boppam. te kenn yilifa ko ku du Serigne Mountakha mii di Serigne Touba ci kaw suuf ni mu ko ko digalee rek la koy defee ñu ne duñ def lenn lu dul di xool ci moom nam muy doxalee ñuy dox ñuy doxal noonu moo waral bis bi ñu doxaloo ko nii ñu ko doxalee. biñ xëy subee jàng nañ fa alxuraanu karim ci njiitu Cheikh Mouhamadou Lamine mii Cheikh Mouhamadou Lamine kan mii di ab Serigne Daara bu baax a baax moom naka jeg alxuraan juñ fi war a def rek moo ko am mbooloom ñooy ñëw taxawee ko ak njàngum xasida mi yëpp. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mu ngi leen di nuyu bu baax. si turu Cheikh Mahamadul Muntaxa sëriñ Cheikh sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di borom kër gi ñu koy siyaare baax di siyaare ay rakkam yëpp di dellusiwaat ci kër gi rek di nuyu jëmm ju tedd yi ñu teddat ñu toogat mu Cheikh Abdoul Ahad Ndiaye ñoo koy siyaare baax ak woy juróom bu baax ci biir kër gi ak mboolem ay rakkam yëpp rek ñu leen a bu baax te di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay bu baax. di tuub bu baax di nayu mbokki taalibe yépp rek fu waaye nekk rek tey dégg sunu kàddu ñu lay tuubal te di la nuyu bu baax waaw Cheikh Abdou Lahad noonu mu ko waxee rek noonu rek la bis bi demee naka jekk yàgg nañ koy teewee yàgg koo def di ko def comme nañ ko daan defee eh, nga xam ne jiitu na sunu man-man waaye ñu fekkee ko noona ànd sa man-man googu daan ko def comme nañ ko daan defee nga xamante ni at yi jàll yëpp comme ni mu ko waxee eh, yàlla def na ci ak mbaaxam ak bëgg lu baax lool ku mu gis boole la ci boppam ba tax mu jëloon lu mel ni njàngam arxuwaan meeg lépp rek ak xasida yeeg yëpp teg ko sunu loxo tam yàgg lool it loolu nga xam ne ak baaxam moo ko waral eh, moom ak mbaaxam foo ko natt weesu na ko ak woyefam noona ak bëgg lu baaxam noona waaye lépp borom bis bi rek la ko niru muy turandoo wa ndax moom mm, da ko doon ci lu bare bëri bëri daal nga xam ne am na ci lu nga xam ne boo amee seetlu rek xam ne lii loolu ñuy wax ne aw turandoo kooku tuddee rek dana jël ci moom juróom-ñaari jikko moom juróom-ñaari jikko yooyu sikkuñ ñi mu ci moom ba tax nañu ngi koy siyaar baax ci suba ba léegi comme ni ko waxee rek eh, bis bi loolu rek la jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala nabi astaghfirullah loolu it ñu ciy sant bu baax wax dëgg ndax luñ ci jàng ci ci ci ay kaamel ndax moom lu jiitu bis bi ba ci bis beeg lépp mu ngoon mu ngoon ci wàccaay bu la neexee ne ba weeru teroo ba léegi guddam ak bëccëg lépp ci bis bi la ndax nit boo demee ba nga xam ne nii booy nelaw sax boo yeewoo yaa ngee xelaat bis bi lan moo koy rafetal lan moo koy te bis bu nga xam ne nii coono yee ca daan am lépp sëñ bi wàcce na ko ngir ngir jamono ji fu mu toll waaye moom teewul moom nam jàppoon bis ba rek noonu rek la koy doxalee kon nu koy siyaar baax te jox ay wàccuwaayam bu baax baax baax wax dëgg li mu jàng si ay kaamel ak xasida lépp daal yàlla na yàlla nangu ko jotali ko Cheikh Abdoul Ahad mi ñu ko doon jàngal ak mboolem ngay daw li yëpp rawatina Serigne Touba ñu ñoom ñii di ko def si borom kat na leen te dëgëral leen te wërsëgal leen ba seen yéene ñu yeggale ko barke Cheikhul Khadim. kàddu yi rafet na lool rafet na am na ak jotal euh, sëñ Abdoul de moom Serigne bi dafa nekk jëmm joo xamante ni si kon neex a waxtaanee la ndax koo xam ne heure boo ubbee télé. dégg ñuy xaw melokaana wala moom muy wax boppam ni mu mel kon kooku moom wax ci moom yomb na lool ndax boobaa da ngay metti li moom ay waxi boppam rek liggéey Sëriñ Tuubaa bi nag fa mu ko fekkoon da ko yokk waaye wàññiwu ci dara bokk na ci li ma gën a marqué Sëriñ Abdou Lahad ndax daaw dafa bokkoon ci liñ ma laajoon dañ ma waxoon ni ma lu la gën a marqué man leen bokk na li ma gën a marqué Sëriñ Abdou mooy ñàkk gi xam ñàkk na koo faggul ak njabootam dari àdduna loolu moom dama ko seetlu seetlu boo xam daanaka dippi weer yi bañ ba ñuy waajal màggal gi ba tey dafa mel ni heure bu ma toogee weer rek sama xel rek lay dem sëñ bi ñàkk gim njabootam gi lenn dul ngërëmu Sëriñ Tuubaa kenn ko xool ci njabootam gi lenn rek loolu rek ngay gis ndax damaa xool xam ni sëñ bi ba mu fi jóge mboolem njabootam gi li tàmbali ci sëriñ Sidi Mbacke mi di ab xalifaam di ko ñaanal yàlla guddal fanam loolu te wéral ko sëñ bi nekk na fi ba jóge fi te mën a wax ne sëriñ Sidi lii ak këram xam nga kook fa kooku fagul ak njabootam dara ab taaw nag bu munta am ci kër ak kër ci biir dëkk ba bàyyim jiite ay rek a waxe waxe waxe sulu kon nag koo xam moom léppam Serigne Touba la am xëyam am ngontam am guddeem ndax da ko daa wax da daa wax ku yeex a gont te bëgg a dab ñetteeloon a xëy sam ngont war naa teel te war nga guddee wàcc moo ab liggéeyam noonu rek la ko jàppe woon nag ñu sant yàlla bu baax ci yàlla bi mu ñu kilifa gu mel ni moom ndax yar boobu mu yar yar boobu mu yar ak njabootam yarin woo xamante ni si faggulu leen lenn lenn lenn adduna lu du ngër mu Sëriñ Tuubaa lu mu am ci Sëriñ Tuubaa lu koy def fàtte boppam fàtte njabootam fàtte léppam yanu liggéey bi rek ba suñ borom wàcc wàcceel ko boppam ñun nag ñu sant ci yàlla baax ndax dañ ci am xaasatan ndax sëñ Blaat ku ko tudd tudd Baye Bara Ndiaye bi fekkee wax ja dëgg la wax ju bu bëree te yàgg rek da da da nga ci tudd Baye Baara Ndiaye ndax la ko waral mooy sëñ Blaat ci bopp moo wax ci lamiñu boppam daal ni Baara Ndiaye mooy sama taaw te lii doomam moo ma ko wax damaa bañ a tudd turam ndax euh, télé bi ñu nekk taaw moo toog ma toog daa ne Baara Ndiaye sëñ Blaat moo wax ni Baara Ndiaye mooy sama taaw na ngeen xam ne baar mooy seen mooy seen mooy seen mag loolu bu ko waxee ba noppi yare ko comme ni mu yare Baara yaroo ni njaboot si bi yaroo dañuy xam ni kon ni sëñ Tuubaa ni sëñ bi yare njaboot ko boppam gum jural boppam noonu la ko yaree ndax baare nekk na fi ba jóge fi moom it faggulul lenn ak njabootu boppam amul kenn ku la mën a xam ni baara pàkk bii la fi bàyyi wala kër gii la fi bàyyi ni ko njaboot ni ko simbilaat defal ci njaboot boobu noonu noonu noonu ko baara faggoo te bu fekkoon yàlla nattoo ko mu nekk ko xam adduna rek ko ñor fu nit di taax mën a tax ca wet ga comme ni ko ñëpp di defe waaye nag moom dañu woon dann Sëriñ Abdou Lahad rek fu Sëriñ Abdou su may dàllam mu ŋàbb ko te loolu nag ñu réccuwuñ ci dara ñu lu baree bari nag manis ñun mën nañ ko cee bañ a xam ndax daa fekk mu jébbali ñu ca daara ñu nekkoon di jàng waaye li ñu mag ñi metti li li ci diggante baa Bara ak Sëñ li tax ñu xam ni dëgg la nit ñi Sëñ Siidi dafa tax ñu xam ni dëgg la ndax maa ngi dégg suñ waajur yi di ko wax léegi suñ kër gi Sëñ Siidi bu fi ñëwee di fi tuddi si doom ku ne xam ne du kenn ci ñun Baara ak Baay ma tax bu jógee fi këram di dem ba daaru ba kës ni si muxtar dafa tuddee ku ñu naan bàyyi Cheikh doom ci waxtu yu jafe-jafe boo koy def du Cheikh Abdou du bàyyi moor bàyyee ma tax bu jógee këram ci koor gi ak couvre-feu bi ni mu mettee mu dem ba kër bàyyi laan jaay fasil dafa di doom du kenn ci ñoom ñëpp nañ xam ne bor la boo xamante ni si bàyyee ma ko lebaloon sunu maam mu wëlbati ko di fay loola kon sëriñ bi sagal nañu sutural nañu te dimbale ñunu te ñu ngi koy wettulu ko te ñun de liñ fekku ci liggéeyu sëñ Blaat ak sëñ Baye Baara liñ ci fekku lépp ni muy doxee war na ne ñu Baye Baara liggéeyal na sëñ Blaat ndax sëñ Sidi de fàttuwuñ ci lenn nim ñuy saytoo ak nim ñuy toppatoo ak nim ñuy lijjantoo lijjanti kaw ak ni ñu wéeroo ci moom ñun daal ñun sant nañ yàlla baax ba ñu yàlla mboole kilifa gu mel ni sëñ sëñ Sidi sëñ Sidi sëñ Blaat ñu ko ñaan yàlla guddal fanam yàlla wéral ko yàlla sàmm ko te yàlla aar ko. te yàlla dëgëral ko te yàlla boole ko ci liggéey sëriñ Tuubaa fa mu war a àgg yàlla na ko yàlla boole ci ña koy taw ba mu àgg fa mu bi bëggee rek loolu daal la ñuy ñaan ñi ngi bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem yàlla nañ ko fekkewaat ay ati ati ati at Cheikh Mouhamadou Mbacké ñi ngi leen di siyaare bu baax a baax baax ñi ngi jéggalu nag na di siyaare soxna si si kër gi soxna Ndey Njaay Abo ndeysaan tur yi dafa ma neex lool ndax tey laa soog a ñëw nag ci bis bi waaye bis bi nuñ ko gisee nii bis bu xam ne bis bu am pasteef la bis bu am pasteef la euh, li ñu li ñu war a wàññi wàññi nañu ko ci jëf ji waaye li ñu war a yokk moom yokk nañu ko ci ci fere bi lu ne am na fi lu ne am na ci bis bi waaye yëpp sëñ Abdoulaye da ko jaroon sëñ Abdoulaye da daan wax ne euh, sëñ Touba daram du tuuti da daan wax loolu euh, ci ndawam ba ci magam mosuñu nemmee ko fu ko sëñ bi na ko defal lii moom da daan dégg da daan dégg sëñ bi bëgg dara rek mu taxaw ci fas ne loola am ba ci ba ci tere yu ñuy wax ni yëpp sëñ Abdoulahat daanaka ci tereem la ñuy sukkandiku ba léegi di ñemee tere yu bëree bëree bëri nga xam ne loolu dëggu ak Pastef moo ko ko may am na ku mos a wax daje naan xanaa sëñ Abdoulahat benn sàmm moo doon sàmm euh, euh, bi mu bi mu déggee sëñ Abdoulahat di wax ci rajo bi nag yi na tekk benn doxatul sàmm bi di déglu rajo bi ba ba daane nag yi soog a départ bi départ bi mu xëyee laay laajte kan mooy Abdou Lahad moom sàmm bi mu ne li ko jaaxal ci ci Abdou mooy bi muy wax nag yi sax dañu dañu déranger tu dematuñu bi sëñ Abdou Lahad di wax nag yi sax dañoo taxaw mu ne loolu moo ko yem ba loolu moo ko indi woon ci Touba pour mu gis sëriñ bi nga xam ne yooyu yëpp sëñ Abdou Lahad li mu ñoddee murit yi daanaka neexu di wax neexu di wax ndax jëfam ak yitteem ak jëmm ji yëpp da daan ñoddi murit yi ñuy dugg ci yoon bi ni Cheikh Ibra daan def noonu Cheikh sëñ Abdoulaye def na ko ay yoon kon ñu ngi koy ñu ngi ñaan yàlla yokk leeram ñu ni nag ñu nekk ñu ngi ñaan yàlla def ñu ñuy murit sadix sëñ Abdoulaye Ndiaye eh, bis bi rafet na neex na def nen fi ay alquran ci teewaayu ay ndongo dara ndongo dara it jàng neen fi xasida yu yu sax dafa yéegee nit ku yéeg bu teeyut dafay daanu root loolu mooy mbiram Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul kon salaatu ma ñu ngi siyaar